di leen yóbbu en première et deuxième division parce que ak Kër Baye rien de possible Sadio Mané mu jóge ba Bambali yeen ngeen dëkk fi ba Dakar euh, li ci am solo rek moy gëm sa bop ak organiser wu su ngeen jógee wa na ko tay suba da ngeen wara a les meilleurs joueurs les meilleurs attaquants les meilleurs défenseurs les meilleurs gardiens ngeen fi fise fay ba am 22 joueurs yo xamni yeen ma ngeen di ay match amico ay bu terrain ñun stade ça am nañu espace bi fi ñu ngi wax ay partenaires mais que que mënuñ def lépp à la fois Touré embrasse Maletron mais bokk na si suñuy projet dans les années à venir ñu fexe ba Sédhiou am benn stade boo xam ne c'est multifonctionnel basket bi nekk fi handball bi nekk fi parce que on pas arrêter le sport rek football.